ku yaatu la itam yaatu mooy xajoon na ñëpp li tax daawul tëju ci buntu kër bi dong la daan mooy amul coffre-fort ci biir amul lu muy denc yenn jafe-jafe yi dara waratu ko lu dul laaj bu bari bi rek te laaj bu bari bi suñu borom bi bind te laaj li muy metti metti fit moo moo moo gën maanaam joxe li muy metti metti fi mu doon moo gën laaj ndax ak put daa wan a soxla su ñëpp dégg te fa juut ak put wana suur lu ko gën a wex dimbali ma ju siiw te kenn dimbaliwu la ak put wana suur lu ko gën a wex moo tax bu la yàlla dimbalee nit ñi di daw di la wut si sag boobee la suñu borom sagal ak sutura soose yi ba ko sàggee bul daw nit ñi toogal lu ñëw nga bokk ak ñoom mag ñi dañ daan toog rek dañ naa la lu ñëw ñu bokk ko su fi dara dikkuti dañ naa la dara nekku fi toogal bu yàlla indi dara mu jox la waaye daw ñu nëbbutu kenn amul woon benn jafe saa yoo dikkee da nga leen mën a gis saa yoo leen mënta gis rek xamal ne yàgg ñëpp a ci yem moo tax nit ku yaatu la woon ku ñëpp nit ku tabe la woon itam mooy dawut dencal dara ndax sëñ Tuubaa dafa daan wax sëñ Muusaa ñoom ni leen li fi nekk sama alal la maa leen ko may bu leen neexee def yitte ju dëkk mën ngeen ko caa def waaye lu ca des nag na ngeen ko delloo jaami yàlla yi mooy dañ leen a denc loowul moo tax léeg-léeg nga dégg ñu ni kilifa sàngam dañoo dajji koppar forum di ma sàngam dañ koo sàcc nangam la ma cey teg man boo ko déggee rek mooy ndokk ndax dañ koo denc loowul wóor ko ni dégg na soxla ba tàyyi mu tànqam lu dégg nañ soxla ba tay mu tankam lako motax buñ ko saccé ndok rek ka war wara jaat ndax mu fekkonté ni dafa nek ngir faji soxla fa dajé ba dess di yob té te nako ñu dégg nañ soxla ba tay jëmu ci dara té ñom loolu lañ leen fi bàyyee yooyu itam daf ci mata bayé xel bu baaxa a baax nit ku lawet la itam ko ni naara ko gis nga diine mba nga toroxal asgor ci kanam soko gis ngeen par rapport ak léegi nga xamanteni ni kilifa yu bari fi mu liñ bëgg moy nga leen di indil information señ bi dégg diiw ni mu so dégg diiw bu ko defé mu def ko mbégte dégg nga daam jafe-jafe diiw nangam ak nangam information yu négatif lañ leen di jox ci seeni bokk ñu def ko mbekté def ko banner, te yooyu jublu woon mag ñi doon woon seenu dund moy yooyu mus leen a intéresse ñu dégg ndigal lañ woon itam moy waxtu wu leen fekk am kilifa mo leen gëna doon kilifa fi mu toll nii gars yi kenn ku nekk sa kilifa bopp nga daanaka fi mu toll nii kenn yiliful kenn kenn ku ci nekk sa kilifa bopp nga daanañu wax kilifte kilifte waaye dara fi mu toll nii bala nga koo xam rek bu ndigal jógee ngay daal di xam ne ah gars yi ñu ngi jubu danañ ko layal ñim jibuwut dañ daan sëñ bi gars yi ko war ñoo ko ci dugal léeg-léeg ñu tumal kenn ni lepp ak diwa rek bo demee fi doni mo moo ne ci wettu señ bi lenn loolu da mu dugal ko ci waye jappatu ñu bu da jubo ak seen banex nak ñu ni señ bi borom batine la borom ges ges la nangam ak nangam waye bu wut ak seen bëgg-bëgg mom dañaan señ bi xamut fu jamono toll wala lepp gaay yi ko dar rek lu dugg ñoko ci dugal yoy yep ay jafe-jafe la yoo xamante ni mag ñi xamuñu ko won kon ñogi fatali wat bu baaxa baax rek ci ni jaamu yalla rek la ñu digaloon mag ñi ci loolu lañ neewon ci lañ jéxal seenu dund te kep ku jaamuwul yalla da ko réccu ku jaamuwul yalla da ko réccu ndax fii yalla jaar ak ñun mom aada la joo xamante du ca delu gannaaw moy téméré at yónni sun borom far boba jam boko mass boba génération taxawalat baneen magum téméré at fim ton buñ koy sul moromam du ca nek lutax moy mooy la ñew tële na magum téméré at mo gis ñukoy sul rek moromam du and ca rob moy téméré at yone rek jamono tukina aduna tukina banen jamono moy moy taxawat banen génération su ko defee nag suñ góorgóorlu te jaamu yàlla lu dul topp ndaw gi nu suñ borom jox ak doole ji kër kër ji di ñëwal foofii la jamono jëm ak ñun kenn ku ne dëkk nga ak mag moo xam ne mën ngaa jàng ci moom adduna mag moo xamante ne ni balaa fajar ay nelawam jeex bu tëddee nelaw tuuti yeewu na li des ci guddi gi da koy xoole buñ ne lekkal mënatul a lekk lu bari buñ ne dawal mooy la buy jóg day rëppi loxoom ñot ñoti ba ba nga jàpp ni da koo nar a tut mu taxaw te bu saxee balaa siggi dana taw ab diir ñun ñëpp foofu la adduna jëm ak ñun foofii rek la adduna jëm ak ñun moo tax nag jay yii nu adduna di jay yaa ko yor yaa mel nii ak yaa def nangam yooyu yëpp ay ay sëlëm la rek yoo xam ne adduna dañuy sëlëm nañ xam ne yoruñu dara lépp nañ ko delloowaat suñu borom te fas yéene doon jaami yàlla te rafetal jaamu bi ndax doole juñ la mën a jox booya boo nga dàmbale penku ak sow ñu ko yoroon yor baat ba di ko atte ñoom ñëpp tey kenn ku ci ne yaa ngi ni ci pax ni selaw sa nopp boo ko dëppoon ci pax mi doo dégg dara bés dana ñëw ak weñ dana dal ci sa xef yi te doo ko mën a dàq kon amoo doole moo tax ñun ciy jaay naa leen yéen a yàlla ak yéen a yàlla jaam ñeeg moom nangam ak yéen a naam nag ay jay yoo xamante ni saytaane koy ràbb dina ko sànn waaye luñ fi xëntawoo lu dul jaami yàlla incha allah danañ yendoo bëccëg boo xamante ni nii di danga ci bëgg a génn mu tëlati ci nañ leen dellu ci jaamu yàlla te roy mag ñi fi ñu tegoon seen tànk te moytundiku lépp lu bon te lépp lu ñuy wax te sa yoon nekku ca nga génn ci fii rek la jaaw waye kep ku yor saw làmmiñ wu ñaaw ak sa man-man tax lepp lu ñu tudd nga laaxaale la ci lu tudd nga sanni ci sab géré de sel bis dana ñëw bo xamanteni ni da nga ne woon ci siiw mucc te do ci mëna mucc ndax atté mom sun borom rek mo koy def sëriñ bi wut yalla moy atté sëriñ bi fayut yalla moy fay sëriñ bi nak da nekkalon yalla motax bimu fi joggé yalla nekkal ko gannaam soko wo yalla wuyu buñ japp mukk ni sëriñ bi da am katanam go xamanteni da ko yor beru nga xamanteni lu neex la cey def te du avertir suñu borom déedéet suñu borom moo ko may kàttan li mu yor lépp ak may la Sëñ Tuubaa li muy yor li bari bari bari ak may la kon am na ku ko may ki ko may jeexalu dara te mooy suñu borom tabaaraka wa taala yàlla moom mii nga xamante ne nii dara tawu ko te lu ko neex lay def te coobareem lay jëfee ma des na koo bàyyi xel koo xamante suñu borom dimbali la nag jox na doole jox la wërsëg ba nga xam jàpp nga ni faale woo kenn da ngay jàpp ni am na yeneen say bokk ñoo xam ne situation yeñ ne neexu te mënoo ca dara ñun ñëpp fi mu doon nii rek barki dem boog njaay ak tay xëy na la fi commencé taw waaye ñun ñëpp ci gannaaw bëggoon nañu ndox te dara lañ ci mënul loolu kenn ku nekk ñun xam na ne yoroo ko ne wut sa baat ki ko yore dégluwu la coobaram rek lay jëfe bi mu ko soobee rek la ko wàcce bi mu koy wàcce kenn ci ñun yëgu ko dangay ngay jekki-jekki dégg muy taw wala mu xiin nga am yàgg nga gis ndox mi nga ah mi ngi taw de foofu la man-manu doomu aadama yam yi nañ ko bàyyi borom te jaamu ji yàlla bi moom layoon ak ñun ba pare wax na bind na na wax ji ña dundoon ak moom doon dégg kàddoom dégg nañ jëf ji ña ko gon gis gis nañ li mu jëf bind mi téere yaa ngi fi ñun ñëpp ñoo ngi ak téere yi sëriñ bi leneen luñ la wax lu méngoowut ak li ci biir téere yi du dëgg luñ la wax rek ci sëriñ bi te méngoowut ak li ne ci téere yi du dëgg mag du weddi boppam Sëriñ Tuubaa du bind dara ba pare di wëlbatiku di waxaat lu weddi wax ja moo taxoon mu ne àjjana ju nangu am ak jaamu yàlla fukk fi waay bëgg amu fi fu ko waaye xam nag te man ko faa am man nga faa dem yéene naa la ko waaye amut fii fi man nit ñi nag dañuy wax naan suñu àjjana Sëñ Tuubaa tegu ko ci sunu sunu jaamu yàlla loolu du dëgg sëñ bi waxu bindu ko fenn duñu la bàyyi diwoo ko fekk naan sunu liggéey sunu sunu sunu teraanga sëñ bi aju ko ci sunu sunu liggéey soo liggéeyu wutit jàmp nangoo liggéey moo jël sa wërsëgam di la ko jox te loolu ak ñàkk jom rekk la dala war a liggéey soo jàmmu jiwul yàlla it boo liggéey jàmbu yàlla gërëm moom ngay yaakaar bëgg mu dimbali la kon da ngay jàmmu ji moo taxoon sëñ daam Abdourahmane ni man doo am fayda ba pare bëgg maa ñàkk loo fayda ñu ni ko loolu mooy lan mo ni da ngay ne ci jaamu yàlla ba bare bëgg man ma du jaamu yàlla du ma ko def dañ leen jaamu ci yàlla te wéetal ko te tënk ko ci sunna te doyloo sëriñ bi te wóolu te may ko orma bu baax a baax sun orma sun diggante ak sëñ tubaa moom des na lu bare bare sëñ orma jëñ ko war a jox sun diggante ak moom des na bu baax a baax a baax a baax te kenn ku ci nekk war ngaa càmbaraat sa bopp xoolaat sa bopp sa ak diggante ak sëñ tubaa mi ngay tuddoo ba xam loo doon ci sëñ bi te bañ a topp jawal gaa yi rek gaay dañ lay sànni de murid saadix nga ak nga gaay fasale mag yow sa e mang sa gannaaw yooyu yëpp ay neel bu ko defee yawin nga bëgg wilaya di gën naan tay biig li ma gënt dañ maa yeb ci avion di ma naaw man ba ca kaw ba nga demee ba ca kaw foo jëm da nga del siwaat kon nga xam ne demoo fenn demoo fenn loolu jaamu yàlla rek ay naxam gënt dara fi mu doon da nga gis ñaar koo xamante ni lu mu gënt gis gis koo xam ne du dara ba pare ëpp doole pop ci sun borom koo xam ne lu mu reere biig sax te ëpp doole fopp ci suñu koo xamante ni lu mu gént gis yooyu du dara te ñun yooyu rek la ñu ba ak wilaaya dara lañu bëgg moom moom la ñuy xantewoo fi mu doon nii moo tax koo ci gars yi ni koo ci yor am jàmm da koo jël si bis bi set mën la saa yi la nga yooyu yëpp fi mu doon ñu koy jàng ngir sëñ bi bëriwul bari na ñoo xam ne fi mu doon dañ naan xasida sàngam day maye mbooloo xasida sàngam day maye wërsëg xasida sàngam nangam ak nangam mais yooyu boo ko amee lu muy jariñ alal joo xam ne boo nelawee fàtte nga boo dee ñàkk nga loolu daa jëru xantewoo daa jëru lu mu bari bari rek boo nelawee fàtte nga fim mu toll nii boo nelawee xamatoo loo am soo dee moom ñàkk nga moom booy dee rek ñàkk nga moom moom amut amatul kon jëru xantoo te nit ki li feeg mi ngi dund suñ borom dana ko jox lu mu dundee kon faaw rafetal wutin wi wutin wi nañ ko rafetal li yàlla dogal nu war ko am faaw danañ ko am lii tax nga xam loola mooy dafa am benn waay boo xam dañ dañoo dox ci àll bi daanu ci benn teel am ay pël yuy jaar ca teen ba daal ni teen bi da boo demee nit da cee daanu bi ñëwee xool ni nit da caa daanu ndax fa mu nekk kenn dafaa jógewut ñu lijjanti ba génne ko ñu ko génnee fekk ñoom ñu yor am soow ñu ne ko nañ njar soow mi nga naan ci te moo paree nettali noo def ba daanu ci teen bi ñu njaree soow mi mu naan ci ba pare ñu ne ko waa léegi wax na nag noo def ba daanu ci teen bi waa ji di leen nettali nu mu def ba daanu ci teen bi far daanuwaat ci teen bi bañ ko génnee mu faatu loola la nga cey déggee mooy soow ma pël ya wër wërsëga ma ala kulli xaalin dana ko naan door a moo tax nit wërta ñaawal aw wutinam ak lu mu mën a dem defal li la war rek bul sàcc bul fen bul njublag bul dara bul damm sa bëti bi foo ko warta damm lii sa wërsëg foo mën a ne danga ci jot moo tax seeblaat ni ku sàcc raw nga lekk ko te kenn yëgu ko da ngaa di waaye sa sa boo toogoon te jubal da ci jot waaye da koo moo tax te suñu borom def li mu li mu wax jaral na ko faat bakkan yu bare bare yàlla ni ko waxam ñore moo tax ñiy defee ni fi mu doon nii suñu borom day caaxaan rek loolu leen wax ñun la ah loolu gars yi dañuy wax rek gis nga kullu nafsin saayiqatul mawt ni mu doone dëgg laneen li suñu borom di wax lépp noonu la doone dëgg wóor na leen ni fi mu doon moom ku judd repp nga moom amul kenn koy nattable ci ñun jërul xool nit naa ko dagaa repp ku judd ci ñun rek repp nga loolu moom ñun ñëpp moom discuter tuñ ko fenn laneen li suñu borom wax te àggugu ca nag da caa àggugut waaye soo ca àggee noonu la koy defee lu yàlla wax dana ko def dana ko def képp ku yàlla ni dana rëq sa ndigg dana rëq sa ndigg te kenn du ko saafara te yalla def lim wax jaral nako fat bakkan yu bari yu baree bari dafa am ben way bu don net ni mu da doon dem Dakar bim ñewé ba ties ab accident am bi accident bi amé ñu bari circulation bi auto yi joggé Dakar ben jàllut yi joggé Touba ak ties yoy yep ben duggatul ndax dañu bari circulation bi néna ma wacc di doxantu ci territoire teli bi gis jalal jalal lu melni ne jaan lay don day bari tank waye néna na dafa yem yéem ndax musuma ko gis né ma top ko muy dox di dox di dox ci territoire bi mu yag mu jéggi teli bi ci kaw autoroute bi di jéggi di jéggi ba ca wet ga ca dess né ma top ko bam for aw sax né ma né ah, sama xel dem ci ni accident bi lu tax suñu borom créé ko moy wa ma min dabatin fil ardi illa ala allah risquha sax wi moy wërsëgu jalal wi te mu sax ko te autoroute Dakar Touba di dem jalal man ca jéggi te auto daru ko mën tané légui yalla teur bakkan yu bari ngir confirmer lim waxon motax kuy soru sun borom do nit matna baye xel bu baakha bax lu len way wax lu dul jaamu yalla rek xam len ni loolu du dëgg ci jaamu yàlla rek ci la sëñ bi mën a sukkandikoo ba dimbalinu te it ci loolu la woote sëñ bi wootewul am po bu woote woon am po dañuy fekk mag ña ko daroon dàq fo ñëpp ñu ëpp moyen